muy sëriñ maam As Mbay euh, réew mi xam ko ci ñaan maanaam jaami yàlla yi dañuy am soxla dem mu defal leen ñaan tey nag ñu bëgg a waxtaan ak moom ci fànn googu gannaaw boo xamee ne dëkk bi débat yi aju ci sëriñ sii def ñaan bari na li nga xam ne am na si ci ay lu doy waar loo xam ne làmmiñ mën na ko tudd ak li làmmiñ mëntu tudd dafa bari émission Al Amine nag comme dafa fi nekkal askan wi bépp thème boo xam ne yitteel na leen dinañ ci waxtaan incha allah léeg ñu jël thème yu mel ni waxtaanee ko bu ñu paree delluwaat ci analyse yi ñuy def ci siratu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp xam ngeen ne tey débat yi bari na si cëriñ si ku nekk ak nim leen jàppee ñëleen ñu ngi leen jàppee ay charlatan ñële jàppee leen ay pexekat ñële jàppee leen ay njabarkat ñële jàppee leen ay luxuskat ñële jàppee leen loo xam ne sax nit munu ko tudd te loolu yëpp nag mu ngi ci biir loolu moo tax tey ñu dalal sëriñ maam As moom mi nga xam ne si métier moomu lay yëngatu ñu ànd ak moom mu wax ñu seen xalaat ci ñoom loolu lan la ak yan solution la ñuy def ba nit ñu moytandiku caaxaan yooyu ak tappale yooyu nga xam ne lépp tey dugal nañ ko ci baatu sëriñ mhm. sëriñ maam as salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin summa asalaatu wassalaamu ala rasulillah sayidina muhammad alayhi salaatu wassalaam mbokki jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu bi di ñaan yàlla mu ëmb yiw sotteeku ci àddina bi yëpp Hadj Amine ñu ngi lay nuyu bu baax di jaar ci sa occasion nuyu àddina bi yëpp mm-hmm. fa tabarakallahu di leen ziyaar itam di déglu sa question rek ñu tontu ci incha allah. Euh, sëriñ bi comme li ma wax léegi. Mm-hmm. affaire cëriñ tey. Mm-hmm. coow li ci am bari na. nit ñi jàpp nañ ne sëriñ yi dañuy naxaate. ñi jàppee nañ leen ay njabarkat. ñi jàppee nañ leen ay tappalekat mhm. sëriñ bu nekk ràbb na ay yëfam yoo xam ne mhm. ci lay ndax nit ñi mhm. sànni na ay mbaal yoo ràbb na ay mbaal yoo xam ne da ci mbaal nit ñi di jël nit ñi seen alal ci anam boo xam ne yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko loolu yow en tant que sëriñ buy yënguti ci ñaan ak nit ñi di am aajo di lee di di ñëw di sàkku ci yow ñaan loolu tey naka nga koy dunde waa alhamdulilah al amin ñooñu duma leen tuddee sax sëriñ waaw parce que baatu sëriñ bi nga xam ne li muy tekki mooy ay cheikhu baat bi rek dafa am lu mu ëmb liif gi rek alifun wa malumun la laam gi layyinul jaanib shiin gi shaakirul qalbi yaa gi ya'mur bil maaruf wa yanha anil munkar xa gi kon kii yooyu jikko du nekk ci moom mais sëriñ bi yow yaa ngi joxe définition tasawuf mhm. bu dee si sufiyanke yi peut-être yooyu lañuy wax ci mhm. cheikh nan la war a mel mhm. muwaasafatul cheikh loolu maaruuf fi mhm. tasawuf mhm. mais tey ci cadre bi ñuy waxee mhm. danga nga am sa soxla feebar bu la dal wala aajo boo bëgg mu faju wala loo yootu nga ne naa dem ci sëriñ diw mu ñaanal ma kooku même boo xamante ne nekkul ab sëriñ buy defar nit ñi di leen yóbbu ci yàlla sëriñ lañ koy tuddee même buxaaba bi fii ci Sénégal njabarkat bi ñooñu ñëpp sëriñ lañ leen di tuddee tey suñu thème bi ci cadre bi lay aju waaw ñooñu ak li ñuy wax ci ñoom remarqué nga ko wala waaw remarqué nañu ko moo tax ma di la jëkkeel foofu pour mën la taqaleel ñi tuddee seen bopp sëriñ te duñu sëriñ mm-hmm. waaw parce que ngi ñuy wax ñépp koo ci gis mënu la argumenteel dara ci li muy wax teg ko ci alquran mm-hmm. wala sunna mm-hmm. ñi ci ëpp ñun dañuy suivre média bi di leen gis yàlla xam na ko da ngay am kersa parce que ku ci nekk xam na domaine bi ngay yëngu am na loo xam ne bu ca tàbbee rek da nga koy yëg parce que da gaañ parce que gis nañ ñoo xam ne dañuy wane ni dañuy luxus fekk dañuy naxaate gis ci ñoo xam ne dañuy wane ni dañuy faj nit fekk dañuy naxaate ak yeneen ak yeneen yu ci aju léegi léeg nga dégg ci kenn ci tuuxi doona léeg-léeg ilaa axir moo tax ma bëgg la wax ni la sëriñ ba tey fa mu nekkoon ma nga fa defe naa bu nu waxtaan wi jàllee bu baax daanu gis critères euh, yeeg charte yeeg yépp ci biir lan mooy sëriñ hmm. waaye lii nii soo demee ci bu jëkk xewoon na mais alquran moo ci indi solution kon li may wax mooy ñun suñu jamono bii itam ñu delluwaat ci alquran ak sun na pour amalaat lii solution parce que soo seetloo ñi ci nekk ñëpp ñi ci ëpp yow rek boo dee nit ku yàlla dogal nga mat maanaam nga am seetlu di nga xam ni amul ñi ci ëpp soo leen di suivre amul benn jikko benn jikko boo xam ni gërëm nga ko ci ñoom ñii soo leen seetloo seen i cell sax dafa des ñii soo leen seetloo seen wax du tegu ci diine du tegu ci alquran du tegu ci sunna moo tax euh, la waa ji wax waxoon ni euh, wa kaana almushrikuuna alarabu yastaiduuna wa yastajiruuna biljinni li xawfihim min fa ankara allahu subhanahu wa taala dalika li annahu ibadun laa yajuusu laa yajuusu sarfuha li gayri llah maanaa ñi fi nekkoon nga xam ni dañ nekkoon ci li leen neex daanaka tënk nit ñi ci ay affaire yu jinneeg ay affaire yu nangam ak yooyu alquran moo ñëw indi ci solution wa qaala subhanahu wa taala wa innahu kaana rijalun min al jin yauduna bi rijalin min al jin fa zaaduhum rahaqa donc ñi jëloon nit ñi di leen taña bala ila axir donc loolu ñu wutal ko solution kon tey su ma bëggee tontu sa rek damay wax ni ñu delluwaat ci alquran pour ñu amal loolu solution déjà. mais mais maam. léegi da nga wax ci affaire jinne yi. Mhm. te la plupart ci sëriñ si. Mhm. bu ñuy kii rek dañuy wane ne ñoom dañu yor ay jinne. Mhm. dañu yor ay ay mbindeef yoo xam ne ñu ngi ànd ak ñoom mm-hmm. ñu ngi yor seen i rawaan comme niñ koy tuddee seen i mm-hmm. xuddaam seen i affaire yooyu noonu mm-hmm, di ko di ko ñaare daal affaire jinne day am rapport ak ñaare sëriñ si mais ñoom fan lañ jëlee jinne yooyu wala loolu ay nax la wala pour duufal la pour tiital nit ki la wala réellement yéen da ngeen a am ay jinne wala nu mu demee noonu waa xam nga jinne am na mais jinne mbindeef la comme nit ñi am na ci ñoo xam ne cest à ñu yóbbu la foo xam ni doo ca mën a teg bët doo fa mën a duut baaraam mais su fekkee dëgg rek moo am mooy nit ki li ngeen seq yéen ñaar jarul lool benn waaye mës na ma ko wax mu ñëw wax ak man ñuy wax ci wàll mu ni ma daal dafa seeti benn nit mais waa ji daal di ko xamal ni arash la fanaan ak ila axir mhm. mu ni ma te man loolu boo seetloo concerné wu ma par rapport ak li ma ko wax ak li mu ko sant daal. cest à dafa ñëw wax ko aajoom. mu ne moom arash la fanaan moom mu bëgg ko expliquer ay arash la fanaan ak. Hmm. ila axir hmm. kon loolu li muy wane rek mooy man nag jàpp naa ni sax nit ñi boo seetloo ñi ci ëpp. Hmm. ñi ngi commencé yeewu ci loolu. parce que gis naa ci benn nit bi mu toogee ci débat bi explique yooyu. ki mu denda ci saa si daf ni ko man ba ma demee ci benn sëriñ mu jël kurus nal ko mu génn ndox rek dama jug ni ko man seetuma lii kon nga xam ni nit ñi ñi ngi yeewu si ci loolu. waaye nag euh, li ñuy gën dimbali pire ñun mooy que ñu am tawxiid d'abord mhm. societé bi mhm. dañ war a am tawxiid mhm. tawxiid boobu nag moo lay dimbali ci yu bari loolu ba tey wax na ci boo gisee mu ni euh, li muy wax wa mithluhu fi zamanina taazimu ruasa wa saadaati walqadda bil ictida li anna rizqa wa nuqsaan ziyaada fi aydihim fa yaxaafunahum sirran wa alaaniya dégg wa yaxshawnahum ashaddu min xashyatillah donc loolu moo xewaat xam nga wax na ni loolu moo dellu siwaat ci sunu jamono yi donc nit ñi dañ leen di jël dugal leen ci cadre yoo xam ni pour wan la ni nit mën na dolleeku ci leneen lu dul yàlla wala mën na dugg ci ay yeneen i problème wala détail yoo xam ne du yàlla subhanahu wa fekk or que loolu mënul nekk mënul nekk loolu nag nit ki moo war a am imaan ci yàlla donc loolu ñun dañ ciy def seetlu yu bari que ni même nit ñiy ñëw ci yow. suñ la fekkee nga simple di dund alquran ak sunna sax da gis ni ñuy xaw a amee par rapport ak nit ñi leen di nax. dégg parce que tey da nga ciy seeti nit yow bu fekkee nit ñi ñoo tax nga jóg war nga am disponibilité ci nit ñi. mais tey su fekkee nit ñi ñoo tax nga teew kenn mënta jot ci yaa ngi wut ay foo leen di laq ak foo leen di ilaa axir loolu tam baaxut dégg kon dafay wax ni euh, moo xam bu nëbboo bu feeñee lépp mu tënku ci loo xam ni tam dafay nekk lu lu lu dëggu moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni yusi kullu wahidin minna wa yaqulu lahu fasta euh, ida saalta fasalillah wa ida wa ida stainta fastain billah wa alam ana al ummata law ijtamaati ala an yanfauka bi cheyin lam yanfauka illa bi cheyin qad katabahu llahu laka wa law ijtamaau على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصفوف yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax wax ju leer ni ñun ñëpp kullu waaxidin minna ñun ñëpp war nañ am xam-xam bu wér ak yaqin bu wér ni que nit buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla dimbaliku ci yàlla nag bokk na ci yàlla moo ni wa nunazzil min alqurani ma huwa shifaa wa rahmatun lil muminin mais shifa fi dawa waaye shifa lima fi sudur maanaam sunu dënn yi alquran raxas ko def ci iman su ko defee dinañ mën doxal dimbali jàppale faj te du wàcc yoon dégg moo tax yonent bi salaa sallam ni dafa war a leer ci loolu kat yi nit ki am pas-pas bu wér ni su bëggee dimbaliku rek na ko dimbali dimbaliku ci yàlla mu leeral ni su fekkee àddina bépp dañ daje bëgg la lor te yàlla àndu ci mu ni mënuñu lay lor mu ni àddina bépp bu dajee itam bëgg la dimbali te yàlla àndu ci mënuñu lay dimbali dégg kon loolu dafa leer mu ni ndax loolu lu ko waral mooy xalima ba fendi na ba yàlla dogalee mbir yépp du tee suñ ñëwee ba ci biir di nga gis que ni ñaan sax dina soppi maanaam nit koo xam ni dafa waroon a dee wala mu nar a am problème ñaan soppi loolu xëccal ko ko ilaa axir waaye nag bu boobaa na tegu ci sharia mais maam. Mhm. yow lii ngay wax tawxiid la. waaw lii jël euh, nit kii dafa war a wóolu boroomam. Mhm. sukkandiku ci boroomam. Mhm. gëm dogalu yàlla. lii bu yëf yi jaaree yoon nii la war a mel. noonu la war a def mais te yëf yi jaarul yoon. lu nekk fa mu war a tege tegewu fa. déviation yu dul jeex am na ci. bon est-ce que réellement. Euh, ni nga jàpp ne nit ñi ñu ngi yeewu ñu ngi yeewu. nit ñi dafa mel ni. da ngay gën di yeete ñuy gën di euh, réer mm-hmm. parce que population bi man je pense que euh, ja euh, erreur bo wala njuumte bi ñu def ñun ñëpp mm-hmm. mooy lépp dañ ko tuddee sëriñ mm-hmm. parce que sëriñ ci tasawuf tey dugal nañ ci lu ci bokkul. Mm-hmm. boo dee doomu sëriñ sëriñ nga. Mm-hmm. te or que demeewul noonu. sëriñ ay critères la. yii ngeen di wax di mm-hmm. ñi nga xam dañuy jëfandikoo alxuraan di ñaan yàlla ci turu yàlla yi. ak di ñaan ci ñaan yi yonent bi indi. ñooñu ñu tuddee leen sëriñ. loolu lu normal la. mais dafa am ñeneen ñoo xam dañuy jëfandikoo shirk. di jëfandikoo seexar. njabar. di jëfandikoo affaire bu xaaba. yooyu yëpp tey baatu sëriñ moo làmb moo làmb lépp. est-ce que tey jaaduwul ñu taxawaat wax ne lii njabarkat la kii saaxir la te saaxir ci euh, dañ ko war a rey lépp ñu tegaat ko place am mais lépp lu ñu lu jóg ñu tuddee ko sëriñ tey mbëru làmb bi danaan damay dem seeti sëriñ bi ministre bi danaan damay seeti sëriñ bi député bi damay seeti sëriñ bi sëriñ bi ci boppam day dem seeti sëriñ bi lépp sëriñ lañ ko tuddee donc problème bi jàpp naa ne foofu la waaw dëgg la loolu mooy nit ñi ñoo xàmmeewul maa ngi déglu keroog benn mbokk bu baax. defe naa mën naa tudd turam sax oustaz Dame Ndiaye. waaw imam Dame imam Dame. muy wax ni. Mm. problème mu nit ñi mooy xàmmee mbaax ak mbon. xam nga loolu tant que amul. rek problème bi du jeex. parce que nit dafay xam su demee seeti nit. moom d'abord kan lay seeti. waaw ah, parce que bu fekkee da nga ni damay jug dem seeti nit pour mu ñaanal ma yàlla. nga ñëw ci moom fekk ko mu yor pettaaw. Mm-hmm. yow jugal ñibbi. boo ah ñëwee fekk ko mu teg ay béjjën yu nu laxas ay moso yu xonk ila axir mais ba ko fa dem xam ne seetoo kii ah, soo ñëwee fekk ko mu bëgg laa jël benn kii ren naan la sëggal ñu sotti la deret ji ilaa axir nga xam ni kii saaxir la su ko defee yow nga teg fa kooku xam nga kon léegi foog problème da xàmmee am xàmmee lu baax xàmmee lu bon dégg suñu xàmmee nag lu baax xàmmee lu bon mu euh, problème bi day jeex moo tax ma dikkal la ci tawxiid mhm. parce que nit su fekkee imaanam mi ngeeg moom mu xàmmee li ko yàlla wax ak fi mu ko ko waxee ni mu koy doxalee mhm. bu boobaa du am problème mhm. mais problème ñi am yëpp soo seetloo même yi ngay wax nii problème jigéen ñi ñoo ciy ëpp dégg ak ñoo xam ne daanaka yeewuwuñ ci àddina ilaa axir yooyu nag mooy nekk suñ problème parce que léeg-léeg da nga ciy dégg sax ñu naan lii waa jooju de déggul sax olof ba léegi xam-xam ak ñaan yàlla tegu ci yoon lu ci charte boobu dikkee. xam nga kenn xamu ko. waaw mais mais yow ni ma la déggee nii Maam As euh, vraiment yow li ngay wax. yow tawxiid ngay wax. loolu mooy li normal mais société bi li ñuy dund leneen la. yéen sëriñ si lu nekk di ngeen koy gis. Mhm. est-ce que nit mos na ñëw ne la liggéeyal ma nit mu dof mbaa mu dee. waaw. la ko wax mës na ma ko wax. mais defe naa ñaarut. Mm-hmm. parce que kooku dafa am lu nu boole benn liggéey. Mm-hmm. boo xam ni moom moo ma wax ci làmmiñam ni ma dem na presque ci cinquante marabu. Mm-hmm. dégg nga bi mu ñëwee mu sant ma ko yàlla def ci sutura. bi mu dikkaatee waxuma ni sax dama lay tester wala dara. def ni ma man am naa yàqin ni que li ma lay sant mën nga ko. dindi xaalis lu toll ci somme bu mag. teg ni ma damaa bëgg kii ñu dàq ko ci barabu liggéeyukaayam. mbaa mu dof dégg mais dama ko déglu ba mu àggal. ma ne ko est-ce que ma tegalaat la somme bu toll ni bii nga indi. pour nga bàyyi kooku mu nekk ci jàmm. fi mu toog dafa toog ba mu yàgg mu reetaan. ni ma noo kii daf maa yóbbu ba Guinée liggéey ma def ko ci xaj nangam nangam. wax ba àggal kon moom it day fayu. dafa bëgg a fayu loolu la wax. ma ni ko dinaa la wax lenn mu ne ah ma ni ko gis nga nit. yonent bi salaa salaam nee nit su fexee ba benn nit defaroo ci moom mu ni moo gën àddina ak li ci biiram nit nag su fexee ba lor benn nit na la leer ni bu peuple bépp parce que yàlla dafay wax ci alquran ni ku dundal benn nit na faka annama ahya naasa jamian dégg ku rey benn nit wala nga lor ko dafa mel ni ñëpp nga rey parce que soo amoon doolee lor ñëpp lor leen donc pour wax la ni la yow dinañ lay indil façon kaa bu ne mais nag yow it xamal li la yëkkati mais est-ce que sëriñ si xam nañ li leen yëkkati. mooy nit naka la ñuy ñëwee nit am fit. Mhm. yow xool la ba mu ba seppali la. ne la mhm. damaa bëgg nga reyal ma nit. waaw mais kooku kooku kooku mhm. daf la yàpp. waa parce que loolu. loolu nag sëriñ su bari dañ ci dañ ci dañ ci am kumpa. xam nga nit ñi ku ci ñëw du la wax réellement li xew. da gis ku ñëw tey naan la. waaw sëñ bi man kat dama séq ak kii ah ma jox ko sama alal mu def ko nii mu def ko naa wax la loo xam ni yow da ngay jàpp ka ni sax danga koy dimbali fekk am maa loolu amul moo tax dañ lay wax ni ci biir loolu nga nekk nit koo xam ni da ngay dangay dangay da ngay da charge ba pare tam li ngay def nga am ci xam-xam dina tax li la nit ki di wax nga xam li ci jub ak ci li ci jubul hmm. benn nitu yàlla dafa wax nii bu nit waxeek moom di nee na li koy wax day fen sax day defe ni moom mi ngi koy dégg te loolu ay may yàlla sun borom la maanaam ittaqullaha wa ya'limkumullah su ko defee bu la yàlla yéegalee ci yenn maraati bi même nit su ñëwee mooy wama aba subuta aqli mu xaal nit ki léeg-léeg mu wax la loo xam sa xol dafay lànk ànd ak loolu lépp nag dafa am ñu sartawoo di def lu bon am ñoo xam ni àddina du yàgg wala mu rëy ko ba nu def lu ñaaw mbaa lu bon parce que seen seen daraja mayu leen ko seen ngëm yàlla mayu leen ko mhm. seen fi nu bokk mayu leen ko dégg naa am na sëriñ yoo xam ne li tax ñu am pouvoir yu ñu yor danoo weddi yàlla danoo danoo danoo dañoo signé pacte ak seytaan waa ñooñu mooy njabarkat yi mais bari nañ fi de waaw hmm. parce que xam nga am na ci yoo xam ni hmm. dañ lay c'est-à-dire ñooñu mooy ñi nga xam ni dañu jaay seen àddina seen alaaxira jëndee ko àddina hmm. te loolu foo dem am na fa foo dem am na fa c'est-à-dire ñu nit boo gisee suñu problème tey li ñu metti pire mooy ñii génn di tuddoo seen ba boo seetloo même yenn débat yi duñ ci dem parce que xam nañ ni amuñu argument yu ñu argumenté li nu yor waaw seulement parce que lii sax pour wax la ne yow euh, avant ñuy ñëw si yow man lii dama yàgg gis koo xam ne ci sëriñ lay yëngatu su ma leen wooyee ci débat yi pour ñu gën a waxtaan jëriñ askan wi dañuy bañ waaw dañuy lànk mhm. dégg nga vraiment euh, bu fekkee yor nga lu baax kay ñëwal ñu waxtaan ko si penc mi. oui lu wér mais dañ naan la bu ma ñëwee da ngeen may daaneel ak. man waaw voilà man kon kooku dafa xam na ni yorul dara. waaw xam na ni xam na ni ñoom ñi ci ëpp. xam na même man mii des fois dañ yàlla xam na ko leer nañ sama xale yi dañ may woo léeg-léeg ci yenn émission te am parce que loolu tam part de responsabilité télé yu bari ñu ngi ci. absolument dégg hmm. parce que man am na dañuy toog woo ma Aliou waaw Serigne Diw parce que sunu. am na ci ñoo xam ni sëñ diw jaar na ci émission bi rek ñoom bës la ci ñoom. parce que xam nañ ni kooku il est chage nit la koo xam ni ku wér la. li muy wax wér na te nit ñi respecté nan ko. Mm. su ko defee nag dañuy def seen i tappale ba nga ñëw jàll. Mm. parce que man am na benn nit bu ma woo dama ni ko déjà concept émission bi nga yor yow. Mm. man duma ci jàll. man ci débat xam-xam laay jàll. ku wax ci xam-xam nga xam ni lii xam-xam la bu leer dégg am na ci keneen koo xam ni tam euh, daf ma woo wallahi sama sonn moo tax mujj ma de parce que daf ma kii ni mu sonnee ci ka nga ñëw ka jàngale leeral askan wi mm-hmm. dégg bi ma ñëwee yi ma argumenté lépp ci ci dëgg ak diine ca ëllëg sa rek daanaka invité na koo xam ci caaxaan lay wax xam nga kon déjà te am na rang yoo xam ne am na ñoo xam bëgguñu ci bokk sa crédibilité donc day wàññeeku. waaw mais maam. Mm-hmm. beneen point bi yéen. Mm-hmm. fajkat yi. Mm-hmm. une deux rek yéen da ngeen di faj jinne dangeen di faj ku rab jàpp. gis naa ay tele ay émission yoo xam ne ñu ngi wane ay nit. ñu ne dañuy say. dégg nga ñii ngi toog ci seen dënn yi di leen rëkk. ñii di dóor ñu ne jinne yi la ñuy xeexal. bon yéen mais wala affaire faj jinne moom dafa moo ëpp koppar wala. waaw soo seetloo moo tax ma ne la ñi ci ëpp itam xamuñu sax li xew. xam nga man wax naa waxoon naa ci benn émission nii bari na kuy wax jinne rab te fekk xamu ko sax. bariwaan tam aussi kuy wax ci eh, maanaam yooyu noonu ay di yuuxu man mës nañ ma indi ne mu yu wuy sa ma ni ko hé mu ne ah, man ko loolu xewul fii mais dafa noppi pour wax la ni la def ci am yoo xam folklore la rek. Hmm. deuxième chose bi tam mooy rab ñi ko xam pire xam nañ ni dafa bari ay effets secondaires. dégg moo tax duñu ci fo mais nag comme bugguma dugg ci yenn détails yooyu li ma mën wax rek mooy yàlla na yàlla dolli sutura. amiin yaa waaw donc ñun nag ñi nga xam ni xam na li ñuy def mu wér war nañ taxawaat am position yu leer. Hmm. ci diine. yow mos nga faj ko dof. waaw lu bari sax. noo koy fajee. waaw mooy su ñëwee alquran am na ci text yu leer yoo xam ni ak ci baatin. dan koy defar jox ko nit ki bu dee dafa am. lu dugg ci non mhm. leerul de xam nga man lu may bëgg di wax bu ñu waxee ngeen ne batin xam nga baatin moom bu ñu la fa dugalee rek. Mhm. yenn bagage yu sew sewaan yi yi jaar yu lëndëm yeeg yëpp foofu lañ koy roof. waaw ah. loo namm ci baatin. <laughs> non non non non fii nag lu lëndëm du fi dugg. xam nga boo demee. Mhm. yàlla moo ni walillahi walillahi al asmaul husna fad'uhu biha dafa am ay turam yu sell yu wér yoo xam ni ku ko ci ñaan mu may la. léegi baatin bi loo ci namm yow. waa baatin gis nga soo demee xam nga dañ lay wax euh, turu yàlla yooyu. Hmm. xam nga dañ lay wax ni la téeméer la. benn bi rek moo feeñ duma dugg foofu sax di indi polémique. Hmm. mais dama bëgg a wax rek ni même turu yàlla yi benn bu ci nekk. Hmm. am na lu muy def. xam nga am na turu yàlla bu tudd Shifa. Shafi. mais dañ ciy liggéey lu bari ci wàllu faj. yaa ngi dégg am na turu yàlla yu tudd Salaam. mais dañ ciy liggéey lu bari ci wàllu nit koo xam ni dafa dem ba daanaka àddinaa ma ngi bëgg a yàqu ak yeneen ak yeneen donc pour wax la ni la am na ci yoo xam ne du génn alquran du génn sunna te dafay ñëw tege wér est-ce que mos nañ la indil ku jinne jàpp nga faj ko wérul munoo ci moom dara waaw mës nañ ma indil koo xam ni dañ ni jinne moo ko jàpp ma faj ko non dafa tane sax mais après mu dellu siwaat ni meloon hmm. waaw lu tax loolu da nga jinne ji da la ëpp doole wala nu mu demee noonu. waaw parce que xam nga faj tam. Hmm. nit ki day ñaan. Hmm. yàlla moo koy may. Hmm. yàlla subhaanahu wa taala nag léeg-léeg nga ñaan ko mu nangul la. léeg-léeg it nga ñaan mu jël ñaan gi sax def ko feneen. parce que yàlla leer na ci xadis bu wér ni. képp ku ko ñaan dina la may. waaw léegi maam loolu bu duggee ci waaw léegi non maam maam defal ndànk xam nga mm-hmm. man dama bëgg fii nit ñi jëriñu mm-hmm. léegi ki nga xam ne moom mm-hmm. eh, moom moom moom day ñaan mayewul xam nga dangay ñëw ci sëñ bi ne ko ñaanal léegi yow comme da ngay ñaan wóoru la dinañ la may wala duñ la may mën ngaa ñaan am mën ngaa ñaan bañ a am mais pourquoi ngay facturer nit ki xaalis boo xamante ni mu mel ni li ngay ñaan da ngay dem jël ko indil ko jox ko ko waaw loolu moom Euh, du ma ni sax euh, facture boo man ci sam bopp laay xam. Hmm. yàlla mii ma tiim xam na ni. Hmm. man kenn ku mës ñëw ci man dinaa la wax li nga war a sarxee rek pour ñu seq ñaan gi. Hmm. su noppee. ba tani nga soog a fay. am na ci ñoo xam sax foofu lañuy ñuy jaare mais man li may liy nekk sama honneur. ak sama contentement ma yëg ko. mooy ma dimbali nit ki rek ba mu ne ci jàmm. xam nga sëriñ bi métier boo dem ñaar ñoo ci nekk. kii dafa bëgg métier bi jàng ko di ko def. kii nag dafa gis métier bi dox na mu dugg ci. ñaar ñooñu du ñu yem passion. waaw léegi man dañ ma waxoon na yaw da faj ci alquran ak sunna. waaw yow da ngay ñaan yàlla. Mm-hmm. doo jëfandikoo xërëm doo jëfandikoo jibar. Mm-hmm. bon yow cest à loolu gars yi di jëfandikoo. Mm-hmm. yow da ko xamul wala sa ngëm yàlla moo tax doo ko def nga yem ci yàlla ak yonent bi. lan moo tax nga tànn yoon bi nga tànn yow ci sa métier bi. waaw alhamdulilah parce que tam man damaa jàpp ni. Euh, dund yàggul dund yàggul bi ci topp mooy dafa am loo xam ni nit personnalité moo ko war a njëkk a gënal lépp lu mu dëgmal ci àddina te nit même digganteem ak boroomam daf ci war a yëg charge yëg ci personnalité parce que yàlla su la bindee ba noppi ni la yow yaay sama représentant ci kaw suuf yow war nga am loo jomm war nga am loo xam ni euh, même bu dul nit ñi boo wéeteeg sa borom mu yëg ni yow yaa ngi ci jub mais defe naa ne bu fekkee ci ay njabar ak yooyu moo gën a yomb parce que xam-xam dafa am ay phase yii xam-xam la bu wér am yaqin bu wér ni lii xam-xam la am ci yoo xam ay tegtal la soo demee ci phase njabarkat yi ay tegtal la parce que soo si cee seetloo ay kii dalay wax boo jëlee lii def ko ni am maa lii mooy yi ngi xam nga loolu ay tegtal la bokkul ak xam-xam boo xam ni dafa nekk xam-xam nekk ay textes yu leer mhm. te nit ku nekk war na jombal boppam janook yàlla di rus mhm. la sama góor ga waxoon Seydi Hadj Malick mhm. àjjanay gàcc waaw moo tax nag ñu choisir rek reste ci alquran ak sunna lu nu ci jaaralewul nag soxla wuñu ko feneen xanaa xamoon ni man suivre naa ñoo xam ni commencement bi dañuy wax ay alquran ak sunna nga dem ba ca kanam di leen gis ñuy duggaat ci détail yoo xam da lay leer ni dañoo yaatal kon suñ dëgg woon ci seen départ ca la ñuy yem yooyu nag man jàpp ma ni. mais mais mais mais c'est-à-dire que maam man damay poser question toujours dama ne ñii nga xam ne dañu jël métier mi. problème bi mooy dañu wóolootul yàlla wala déet. parce que alxuraan li fi nekk ci ay ñaan. bàyyiwul dara lépp lu nit soxla ñaan googu alxuraan indi na ko. Mm-hmm. yonent bi indil nañu ñaan yëpp. Mm-hmm. ngëneeli ñaan charte yi ñaan lépp ñu jàngal ñu ko ñu xam ko. Hmm. mais pour quoi ñu bàyyi ko fi dem di jëfandikoo xërëm ak njabar. waa njuumte. Hmm. parce que man damay wax ni ñi ci ëpp tam boo seetloo parce que dañuy wax ni nit ki balaa ngay def xam nga tey jii même médecin bi. Hmm. mi di jàng ba am bac dem def dix ans pour nekk docteur. mais bokkul ak koo xam ni nag maamam moo doon ñaan wala sax mu ñëw fréquenté kuy ñaan ila axir am ay secret rek commencé bëgg a nekk ñaankat kooku day dugg sax léeg-léeg ci phase yoo xam ne moom comprendre ko moo tax dañ lay ni da nga war jàng alquran wattu ko ba noppi jàng sharia su ko defee nga soogu mën a nekk nag ci voie boo xam ni leneen loo jàngaat danga koy référence ci alquran ak sunna mais su fekkee yow sa sa sharia sax bënnul xam nga yow mën nga dugg sax ci loxo yoo xam doo comprendre waaw dëgg la mais mais li ma comprendre mooy. ngënee li ñaan rek. suñ ci concentré woo. bu nu ko temps bi mayee ñu. Euh, ñëwal ci ngëneelu ñaan. waaw parce que nit ñi baax nañu xam ko. waaw xam nga dañ wax ni ngëneelu ñaan fukk la ak ñeent. Mm-hmm. léegi dama koy gaaral rek. su ko defee nit ki toog. Mm-hmm. dina xam ni ndax lii ku ko mel. war nga def safaan wala déet. bismillah xam nga def ni doa taatullahi wa imtisaalul amri azza wa xam nga su fekkee ñaan rek. topp yàlla la. dëgg la waaw ah. xam nga topp yàlla. Eh, alladina yadulluuna ala taatillah wa yuxadiruna min tibaa cheytaan kon nasalu llah an yuwaafiqana li tibaa sunnati nabiyina wa shafiina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu eh, bu fekkee loolu la rek kon xam nga ni nit ki war na nekk ci yoon mu ni tam eh, adduaa min sifaati ibadillahi almuttaqin ñaan bokk na ngëneelam yi bokk na ci meloy jaamu yàlla yu ragal yàlla ya gis nga ba ci koor ba ci màkka yépp définition yi da lay jox euh, laallakum tattaquun kon nga xam ni ñaankat bi bu awee fi mu war a aw résultat mooy ragal yàlla dëgg dégg mu ne addua ibadatu ibadatun ibadatun mm-hmm. kon jaamu yàlla la moo tax nit ki su demee bay nekk ci ñaan xam nga léegi moo tax suñu ko taachalee ñun fokk ñu jug pour beddi yi nga xam ni bokku ci parce que loo xam ni ku ci nekk sax ci jaamu yàlla nga nekk kooku kenn waru ko taachal waaw dégg mu ni euh, doa akramu shay'un ala allah mhm. lu ko gën a tedd ci yàlla amul parce que waxtu wi jaam jaam bi saa yu jugee taxaw di ñaan boromam subhanahu wa taala na la leer ni bokk na ti ñin ñi nga xam ne yàlla daf leen di reconnaître parce que dañu wax ni lépp lu nekk ci àddina soo ko dee ñaan mu mere la mbaa mu jéppi la ba mu des yàlla dëgg la yàlla boo ko ñaanul mm-hmm. la lay mere mm-hmm. dégg kon mu ni addu'a mahbubullahi azza wa jal mm-hmm. ndekete kiy ñaan yàlla sax yàlla daf koy bëgg kon xam nga ni loolu war na nit ki ci nekk war na seet boppam mu ni doa sababu lil shiraahi sadr mu ni ndekete sabab la ci nit ki yàlla dimbali ko ubbi dënnam ci mbaax ci yiw ci ragal yàlla ci fonk nit ilaa axir moo tax damay wax euh, toujours ni que soo seetloo même nit ñi nga xam ne dañu nekk di giinganteeka defi yëf kon nekkuñu ci lin war a nekk mais suñ ci nekkee moo tax soo seetloo même ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu ak di ñaan yàlla bu baax. Mhm. soo leen seetloo nit ñu généreux lañuy doon. Mhm. ñu tabe la ñuy doon ñu yaatu la ñuy doon. Mhm. ñuy jéggale la ñuy doon. gis ay mag yu baax fii fii ñi leen tooñ fi ñu jaar ñoom mais suñ wàññi dañ leen di wax baal nañu leen. gis nga ko ñaareel ba tam mu ni ba tey sababu li dafa al ghadabillah maanaam sabab la ci dàq meru yàlla. yàlla subhaanahu wa taala meroon ci waxin sax nit di ñaan yàlla ba suñ borom subhaanahu wa taala meram moomu kat wàññeeku ci doomu aadama kon problème ak crise ak bu mën a am ñaan yàlla da koy saafara kon loolu suñ ko bëggee taachal tam jaadu na ñu def ci ay leeral dégg mu ni tam euh, doa dalilun ala tawakkuli ala allah mm. ndekete tegtal la ci wéeru ci yàlla mm. da ngay gis tey jii man ma am problème au lieu que ma wàcc ci tali bi wala ma taal pneu wala ma def dara mais damay daal di dem di ñaan yàlla yàlla nag ma saafa toog nag di yaakaar looloo tax nga dégg sëriñ Cheikh Tidiane si atalallahu ambu ni ñaan fajul aajo mais day dëgëral yaakaar kon ndekete tawakkul bi ngay def sa digganteek sa borom rek loolu jar na nit nekk ci dégg mu ni tam bi ci topp mooy euh, samratu doa mu ni madmunatun bi iznillahi taala mu ni euh, fa maanaam ñaan tey jii bu doon misaal ci garab boo ko jiwee dina sax meññ jariñ nit ñi ci kàttanu yàlla subhanahu wa kon da gis que ni même kii ñaan na jàpp ni lépp lu mu ñaan yàlla yàlla dina ko def amma defi ni mën na wuute bëgg ko ci lii mu fencalee bëgg ko ci lii mu fencalee te loolu wér na ci xadis yu wér dégg mu ni sababul li dafa al balaa qabla nuzuli sabab la ci musiba buy wàcc lu jiitu muy wàcc jaami yàlla yi taxaw toog nan gis dëkk bi naqari wala dara ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yooyu kat yàlla indi ci saafara mm-hmm. lu jiitu muy wàcc mu ni waaye tam sababun li rafaa al bala baada nuzuli mm-hmm. su musiba amee ba noppi tam jullit ñi buñ découragé mën nañ ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla soppi mm-hmm. dégg ko kon loolu lu am solo la mu ni li thabaati wa nasr ala al mu ni addu'a mafzaul mazlumina wa maljaul mustadafin ndekete mu ni ba tey itam làquwaayu ñi nu tooñ la ndim ndimbalikuwaayu ki nu tooñ la tam parce que soo seetloo dañu wax ni gis nga xadis ba dafa wax ni ki nu tooñ digganteem ak yàlla sun borom bu ñaanee yàlla ki ko tooñ du am benn xijaab bayni wa bayna allah laysa al xijaab gis nga ko kon loolu dafay wane ni loolu ci ngëneel yi la bokk ba tey mu ne addu'a dalilun ala al iman billah mhm. ndekete dafay tegtale dalil la ci ngëm yàlla kon ngëneel yi fukk ak la mhm. dégg te ci biir fukk ak gis nga 14 moo tax dara du hasard mhm. bu tegoo ci yoon gis nga 14 moo jàpp wahaabu te wahaabu mooy mayaakoon bi moom yàlla moo tax même nit ki su demee toog di ñaan yàlla subhanahu wa taala c'est-à-dire ngëneel yi ngëneel yi nga lim quatorze la quatorze la dafa dëppoog hmm. turu yàlla bi ñuy wax wahaab mais loolu est-ce que du yow yaa ko yemale foofu rek non fii la yem ah waaw foofu man man mën naa ci lim yeneen ngëneel ah waa d'accord mais yii ma jàpp man doyloo ko quatorze la <laughs> dégg nga léegi léegi waaye kon yii may bëgg a wax du mën a yokk wala benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn hmm. juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñeent quatorze la bii da nga ciy yokk loolu mooy sa baaraam yaa dafa di si nekk waaw waaw léegi quatorze la waaw beneen bii quatorze la hmm. xam nga ñaar yu wahaabu la hmm. soo ko boolee vingt huit moo dëppook araf yi composé alquran d' accord léegi bon léegi côté boobu noonu sax bëgguma ñu dugg si côté parce que léegi la problème mm-hmm. mooy yooyu moom c' discutable parce que tamit xam nga chiffre moom des fois mën nga def ni mu tombee lii nga defaat mu tombee lële ça <laughs> de y a pas de problème mais problème bi lii nga wax mm-hmm. lii tawxiid la mm-hmm. lii jullit bu nekk mhm. mën mën na koo nangu mhm. parce que euh, lii euh, euh, lu ci nekk point boo tudd mhm. mën nañ koo wéer ci benn aaya mën nañ koo wéer ci benn xadis donc yii y a de problème te defe naa bu fekkoon ne ñëpp lii la sukkandiku xam nga ne lii ci nekk defe naa ne kenn du nekk di dugg ci affaire seytaan déedéet kenn du nekk di dugg ci affaire xërëm kenn du nekk di dugg ci affaire njabar mais lii dama wax ne bi yonent bi waxee ne addu'a huwa al ibada boobu rek la problème yi jeex mhm. la fait que nga yëkkati sa loxo yaa allah yaa rabb allahumma mhm. yaa ngi ñaan yaa ngi si jaamu yàlla yëkkati rek naan di ñaan yàlla rek mhm. moo xam jox na la moo xam joxu la yaa ngi si yaa ngi si jaamu yàlla donc loolu loolu rek euh, kenn mënu koo werante ak ngëneel yi ci nekk mais problème bi maam as euh, ce que nit mën na layal jël ñaan def ko métier c'est-à-dire yow amoo benn métier ci àddina mhm. lu dul di ñaanalaate ñu lay fay mhm. te bu ñu xoolee fii ci réew mi mhm. bu dee li ñuy tuddee ilmul asraar mag ñi ñëpp ko yoroon presque gox boo dem xam nañuy asraar tout le monde nga mais ànd ak loolu yëpp dañu amoon seeni tool di bay ñi yor seen commerce di ko def ñi yor seen métier mais tey bu ñu demee ba jamono ay xale yu tuuti ñoo xam ne ci daara ji waroon a nekk Euh, wala ñu dem defi leneen. jël ñaan rek def ko mécc loolu est-ce nit mën na ko layal. waaw euh, am na ñoo xam ni yemuñu ci ñaan kase am na ñuy mécc d'accord waaye am na ñoo xam ni tam di nga toll foo xam li ngay def tam xam nga ñaan bari na ñuy wax nii rek mais dafa metti te dafay jël temps dégg am na ci ñoo xam bu jaaree ci yoon yàlla xam na ko noo ko booleek leneen. Hmm. loolu moom ñiy déglu te di ci yëngu teg ko ci yoon. xam nañ li may wax. parce que ñi ci ëpp guddi duñu ko gëmm bët. am ci ñoo xam da ngay nekk ñetti fan ci xëlwati wala leneen loolu kenn mënu ko booleeg di xëy di dang-dange ci leneen. dégg donc mais li am solo rek mooy te nit tam lu ko teree añ lu ne añ na. su fekkee mi ngi tegu ci yoon jaar yoon nit ki am na lu muy fajee soxlaam kooku doo ko forcer ni ko jugal bàyyi fi lii defi leneen te tam bu nu fàtte nitam euh, nit ku nekk ci li muy yëngu. àq la ca ñu di ko ca fay maanaam tous les travail euh, xaw ma na ko tubaab bi waxee maanaam métier bu nekk yelloo na payam loolu nag leneen li ci topp rek mooy nit ki moom moo xam waaw moo xam parce que am na ñuy ñaan nii te amuñu dépense am na ñuy ñaan te mënunoo jënd benn benn kii am ñoo xam yàlla ubbi na leen ci ñu am ci lu nekk mais c'est que le problème mooy dañu xëy rek gis benn phénomène tout le ah. monde nekk ay ñaankat. waaw d'accord xam nga ay xale. Mhm. yoo xam ne dañuy ñaan ñu leen di rang. Mhm. dégg nga ñële ñu ngi leen di defal ay courtier yoo xam ne ñoo leen di indil client yi. Mhm. ñoom seen métier mooy ñaan rek. ñaan boobu nag bu ñu ko waxee lépp a ngi ci biir. c'est-à-dire ñi ko def métier en général. dafa am tappale yu yu nekk ci biir. ay ay ay naxaate ay tappale yu nekk ci biir ñu xëy def ko métier. loolu nit mënu ko layal je pense. déedéet léegi li may wax foofu rek mooy même bari na léegi lu may dégg ñu naan ay xale ay naan c'est-à-dire. xale amul. am na ci waaw waaw maa ngi ñëw. Mhm. c'est-à-dire dama la bëgg wax ni. tey jii bu njëkk. Mm. bu mësaan a gis benn euh, président euh, maanaam benn juge wala dara. Mm. day am ay quarante ans soixante ans. Mm. léegi da gis ñoo xam trente cinq ans lan occupé post yoo xam ni ay post yu mag lan. xam nga lu am solo. mooy nit ki li muy def na ci am compétence. maanaam na ko mën. waaw mën gi rek parce que xale ak mag mi ngi dépendre ci kañ la ko jàngi. parce que nit mën na teel a gëstu ji teel a xam li muy xam dégg mais am na ñoo xam ne tey ba léegi ñi ngi gëstu mais mën a gunu matal. mais mamas waaw mais non c'est que le problème mooy te da ngay mhm. gis ñoo xam ne. Mhm. Euh, ay jeunes lañ comme ñoom. jàng alxuraan baaxul. Mhm. nañ waxante dëgg rek. waaw mënuñu ko njàng njàng mu correct. ko jàng seen jàngu seen jàngum charia lii gën a ndaw jànguñu ko. yaa ngi dégg. xëy nañ. lal seen i pexe mm-hmm. ak seen i seen i mën-mën mm-hmm. di ñaanal ay nit ñu leen di fay mm-hmm. tànn ko def ko métier kooku ci jàng la toll dafa waroon dem jàngi diine loolu te xam nga métier mi yii nga ci wax ak jinne yeeg njabar yeeg yooy noonu def naa nit ku jàng charia mooy mën a mucc ci yenn yi parce que boo jàngul charia xam dëgg-dëgg ñëw dugg ci lii di nga di def loo xam ne dañ la ko tere dëgg la ci cadre boobu laay waxee parce que man da li ma jaaxal mooy dama gisul ci mag ñu baax en toute sincérité waaw li nga li nga wax noonu nag dëgg la. Hmm. xam nga wax naa la sànq ni la même docteur bi day jàng ba àgg université. Hmm. soog a tànn ci yenn ci post yu doxal ko. Hmm. loolu moo war a am. moo war a am parce que da war a dem jàngi alquran ba noppi. jàng sharia. kutubu sharia yëpp nga jàng ko pegg ko. soogoo jàng leneen doxal. même man gis naa ci ñoo xam ni. man leer na ma ni li ñuy wax xamuñu ci dara da am sax problème parce que tam da lay metti léeg-léeg bu gaañee ci fi nga nekk sincèrement mais nag yooyu yëpp tam man jàpp naa que ni askan wi yeewu nañ léegi ci loolu à mm-hmm. travers que ñu mel ni yéen non maam maam maam mm-hmm. ñu ñu mel ni man ak mm-hmm. ñu mel ni bon peut-être ñiy leeral ñeneen ñooñu par rapport ak ñiy yàq dañ leen ëpp doole amul benn chaîne de télé wala rajo lu dul dina am émission boo xam ne ay sëriñ ñu ñuy tuddee sëriñ ñoo fay ñëw di njabar dañ lay liggéeyal liggéey bi rey nit a nga sa tas sëya nga ca dofloo nit nga ca ñu dàq nit a nga fa yeew nit ki surtout bi làmb yi xew yooyu nga xam ne njibar gu wér la jàpp nit yeew ay cëram ba du mën dara loolu sixar la sixrul marad anwaa as sixr yi am yooyu yëpp tey da ngay gis mu am donc tey télé yi bon peut-être émission sëriñ yooyu day indi xaalis. Mm-hmm. émission gisaane yi day indi xaalis. Mm-hmm. donc nit ñaa ngi yeete mais nit ñaa ngi réeralaatee façon boo xam ne jéggi na dayoo. waaw euh, xam nga bul wax euh, yéen parce que loolu la plupart ñi ci ëpp. Mm. boo seetloo dëkkunu Sénégal. am kañ. Sénégal. mais am na ci ñoo xam dëkkuñu fi. non mais Serigne non non Sénégal nag affaire Serigne bu maam as dañu si foor même boo demee ci yenn dëkk yi ay Arabie Saoudite ak yooyu sénégalais yi ñu jàpp foofu ci dafa bari. waaw non c'est-à-dire boo dem ci monde bi Sénégal moom affaire cër lu ñuy tuddee cëriñ. Mhm. moo xam bu baax la bu bon moom dañ leen ko xamee moom. waaw sénégalais yi bari nañ si. waaw waaw léegi xam nga boo déggee ma ni la Sénégal mooy ñi nga fiy dégg ñi ci ëpp du ñuy kii même am na ci ñoo xam ne sax du ñuy ñii ay courtier lan. mais ay sénégalais lan waaw waaw. Mhm. ñii tam ay dóorkat lan. mais dóorkatu martu lañ leen di tuddee. voilà dóor martu man man génn naa tukki ci benn dëkk. Mhm. yàlla xam na ko dama rus. Mhm. dama rus parce que benn waay dafa ñëw wan ma benn ginaar rey ko bàyyi ginaar gi muy dox. mu def ay affaire ba pare ma ne ko waa léegi après na léegi rey nga ko jug na dox léegi après amul benn benn benn kii. mais loolu nan la mën a nekkee. waaw parce que dafa def ay tappale rek. no mais rendi na ganaar gi ba bopp bi dagg. waaw ganaar gi jóg di dox léegi yéen yéen sëriñ yi ban tappale moo nekk foofu. parce que bu ñu rey warul jóg dox. waa waa parce que man moom damay wax que ni yàlla xam na ko gis naa ci benn nit ba ke muy wanee tappale yu bari. Hmm. man sax dama jaaxle parce que yooyu man xaw ma ko. Hmm. yàlla xam na ko musuma jàng tappale xaw ma ko te bëgguma ko sax a xam. Hmm. parce que am na yoo xam ni nit warul sax mais gis naa benn waay yi mu wane yëpp man sax dama jaaxle parce que man commencement bi avant muy tekki moom yi mu wane. dama ni woon waaj yi aay na mais bi mu paree wane ni ay tappale lañ koy defee nangam ñun wut man wutuma sax a xam loolu yàlla mi ma tiim xam na ko. Mhm. parce que am na yoo xam amul njariñ. Mhm. waa jooju laa ko wax mu ni ma heure bii daaw jëlee naa fi cent millions ren paasa ma fi bàyyi man ko voilà xam nga ni cent millions yu jaar yoon nit mën na ci dund ay at. Mhm. ma ni ko kon bàyyil yii. mooy ki rendi ganaar gi ki rendi gi. Mhm. ni ma mën naa ko def ci xar mën naa ko def ci nangam ila axir ma ko yooyu yëpp nag amul njariñ. Mhm. dégg parce que ñaan du lii. Mhm. man ko li ngay waaw léegi nañ nañ nañ del si si si si ñaan parce que ñaan aussi man je pense que dem ci sëriñ baax na. mais nit aussi mën na ñaanal boppam. waaw si si diine ji wax nañu kii ñaan nan la mel. léegi est-ce que mën nga ñëwal ci charte yi. charte ñaan bokk na ci nga xam am xam-xam bu wér ni yàlla mooy nangu ñaan. moom rek moo am kàttanu mhm. nangu ñaan mhm. loolu dafa wër a wër ci nit ki nga xam ni dafay ñaan mhm. yàlla mu ni bi ci topp kenn du nga am xam-xam bu leer tam kenn du ñaan ku dul yàlla doo ñaan ci xërëm doo ñaan ci jinne doo ñaan ci ay lu mu doon pettaaw ak ilaa axir mu wér ni yàlla rek nga war a ñaan donc kenn du ñaan ci lu dul mu ni tam nga def tawassul tam bi anwaai tawassuli mashru maanaam nga def tawassul tam ci yi nu xam ci yi nu yoonal tawassul ci yi nu yoonal ci sharia ah ak euh, yu nu nangu daal maanaam kenn warul jël di def tawassul ci ñaan ci loo xam ne daganul duggaat na ca ca njabar yaag yépp dégg mun itam nga defaat euh, euh, tawassul ci turu yàlla yu kawe yi ci melokaanam yi waaw mooy walillahi asmaul husna fad'uhu biha donc ci lan koy ñaan kenn warul ñaan ci leneen lu dul lool mu ni euh, nga defat tawassul tam ci jëf ju baax rootoon na ca ci benn xissa ña doon dem ba dugg ca ma xeer ba njatt leen ku ci nekk wax gaaral lu baax lu mu mës a def ñaan ca yàlla yàlla fekk ko ca kon dinañ def tawassul ci jëf ju baax waaw mu ni tam euh, <clears throat> nga moytu yàkkamti waaw tajannubul istijaal maanaam ñaan naa rek ñëw ñaan naa lii rek foog ma jot ci loolu tam bokkul ci charte yi yàlla nga ñaan moo xam kañ la la koy jox ak nu la koy joxe. dégg nga loolu tam dafa war a wér mu ni tam nga ñaan yiw kenn warul toog ñaan yàlla yàlla na nga dofloo diw kenn amu ci sañ-sañ loolu dañ ko tere ci chart yi bokku ci dégg nga kenn warul ñaan tam nit yàlla dee mais mais mais beneen bi mooy ñaan nit euh, nga xam ni bari na nga tey nga dem ci sëriñ pour ñaan pour ndaw si nob la wala nga ñaan pour waa ji nob la takk la sëriñ bi liggéey ko wala mu def ñaan ba ëlbati xelam soit jigéen ji topp la wala góor gi topp la loolu moom fan lay dugg waaw loolu bu fekkee ñaar ñuy dencante ñu di leen ñaanal yàlla pour ñu ànd nekk loolu dagan na ñu bëgg a sëy waaw ah. ñu bëgg a sëy hmm. dagan na parce que da ñaan taalib ak matlub bi yëpp nga boole ko ñoo ñu nekk mm. ci jàmm mm. mais nag su fekkee benn waay rek moo ñëw ni la ndaw si dama ko nob ba sonn mu bañ mm. kooku nag jaaduwul nga di ci def dara pour mu nob ndaw si nga xam ne day wax sëriñ bi mu defaral ko pour lu mu wax jëkkëram mu defal ko ko waaw bu boobaa xalaa xamoo sëriñ léeg-léeg am na ñoo di nga ñëw wax dara ñu déglu la ba pare def leen war a def parce que loolu tam ci responsabilité liggéey la bokk. Mm. parce que am maa kii soo ko bàyyee dina seeti keneen ku ragalul yàlla. Mm. mu def ca kii que ce mm-hmm. léegi nag su fekkee mën nga ko liggéey loo xam moom bu àggee. Mm. dina yëg équilibre ci ñoom ñaar. yëg jàmm ak tawféex yow loolu nga koy defal. Mm-hmm. donc loolu moom dafay dagaat. Mm-hmm. dégg kon moo tax da ngay ñaan yiw mu ni bi ci topp mooy nga rafet njort ci yàlla. xam nga bari na koo xam ni ah man de dama ñaan ba sonn yàlla nanguwul loolu kenn waru ko dëgg la. nit dafay rafet njortu ci yàlla subhanahu wa ñaan nga ko yàllaa xam li gën ci yow léeg nga ni yàlla dama bëgg oto moo xam ne oto bi bu la ko mayee nga accidenté ci dee yàlla bañ la jox oto bàyyi la ngay dugg ci oto yi chauffeur si mën a dawal dëgg la léeg nga ñaan kër fekk kër ga boo ko sampee sa ginnaaw ay musiba fay xew ila axir hmm. yàlla moo xam li nit kiy soxlaab nu mu ko koy rek léeg moo tax yonent bi nee na amul benn ñaan bu dul nangu mhm. salaa salaam nee na ñaan yëpp ay nangu mhm. mais yàllaay xam ni mu la koy joxee dégg mhm. mu ni tam ak xudurul euh, euh, qalb maanaam teewlu mooy li ma la wax sànq am nañ façon ñaan yoo xam ku ko bëgg mënoo koo booleeg dara parce que moo lu ba moo indi ay xëlwateeg moo indi ay toog guddi lëmm di tudd turu yàlla yu wér bañ ci rax daray jinneeg ila axir tudd ko ba ba nga xam ni yàlla yëg ne ni fatahajjat bihi naafila asa an yabaasaka maqaama mahmud nga xam toog ba xaadi rabbuka ah, ah, waaw ngay naafila ñaan yàlla subhanahu wa taala mm-hmm. day lay yéegal sax ci maqaama yu kawe mm-hmm. dégg mu ni ak ban mu ni ak ñaan bu tënku ci sharia mm-hmm. mooy li ñu doon wax kon nit ki ñaan yàlla charte ya daf ci bok mu tënku ci sharia maanaam def li ko sharia sant faqat waaye nag sëriñ bi gis nga jamono bi ñi tënku ci sharia gars yi dañ leen fii romb sax parce que leen bëgg mooy bu ñëwee fekk nga wekki leget ay xuju xaj ay affaire yooyu fekk yooyu bokkul ci ñaan amul benn rapport ak ñaan guy nangu or que ñooñu sax yàlla daf leen di jéppi suñu ñaanee du leen wuyu mais ñiy wax ne ñaan ci affaire tur yàlla yi dafa yéex li gën a gaaw mooy yoonu zulmaaniya bi loolu ku gëmul yàlla moo koy wax hmm. waaw ku gëm yàlla hmm. waroon nangu sax kenn gën a gaaw yàlla subhanahu wa kon loolu wérut déedéet wérut mm-hmm. da zulmaani yu yooyu ñuy wax mm. am na ci ñoo xam ni suñ leen sante ñaan ñu sant ko ku sel mm. te li ma la wax dama ci am yàqin bu wér te kon loolu wérut daal déedéet man am naa ci koo xam ni mës na ñëw sant ma benn affaire mm-hmm. bi ma ko nee kii mu ni ma yaa ma gën a sell man ko déet gënu ma la sell te moom yu lëndëm lay jëf te moom yu lëndëm lay jëf ba ñëpp xam ko ci mm-hmm. mu ni ma sëñ bi daal dimbali ma ci kii parce que man kii lii mu ma sant ni xam naa ni dëgër na te yow njott naa ni yaa ma gën a sell ko parce que da ngay zikar salaat faati kon nga yëg ni ñoom xam nañu ni sax ça ne va mais comme yooyu la gëm nit ñi ñoom ñu di leen ci nax dégg mu ni ak tam bañ a ëppal ci ñaan waaw mooy euh, te jann te jannubul i'tidaai fi du'a bañ ci ëppal am na xam ne ñu ëppal ci lii laa jël yoo xam ni bokku ci jël yeneen def yoo xam ni waru ci sax am donc loolu moo nekkoon charte yi nga xam ni ku ci tënku te yii yëpp defe naa lu naqay yàlla ah, new waaw déedéet déedéet non lii sax lii moom ku ci tënku yàlla nangu sa ñaan loolu ku ci tënku rek yàlla boo ci tànnee benn sax tënku si yàlla nangu sa ñaan mm-hmm. premièrement point bi nga njëkk a wax muy euh, gëm ne booy ñaan nga gëm ne aajo ji yàlla nga ko mën a faj waaw loolu mooy tawxiid waaw nga xam ne amul kuy maye amul kuy faj aajo amul kuy dimbale amul kuy jëriñ amul kuy lor kudul hmm, suñu borom yàlla loolu rek mooy tawxiid dëggantaan qul inna salaati wa nusuki wa <laughs> mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin jërëjëf def naa képp ku bëgg ñaan tey bu teewloo charte yi hmm. ëllëg yàlla mën na ko gën a dimbal yombal ñaanam hmm. mamas euh, beneen point bi ma bëgg ñu bi ma la bëgg a laaj mooy bu bëri tappale la bu bëri naxaate la waaw mooy li ñuy tuddee sarax sarax moom. lu ne di nga ko dégg ñu génnee loo ko nit sarax. dégg nga dinañ la saraxeloo gëlem. saraxeloo la fas. saraxeloo la mbaam. saraxeloo la nag. saraxeloo la sax jaan. lépp yoo xam ne sarax saraxeloo la sax gaynde yooyu yëpp tey am na tey. non man je li ma yoo xam naa ko. dégg léegi sarax dañ lay wutloo sarax boo xam ne doo ko mën. léegi bu ñu xamee ne doo ko mën dañ naan la jox ñu njëg gi léegi mm-hmm. ñun danañ la ko génneel mm-hmm. génneel la sarax boo xam ne deux millions trois millions mm-hmm. jël ko damm ko seen gafaka mais sarax wàccee nañ ko place am parce que jàpp naa ne ci diine l'islam sarax euh, taxawaay bi mu ci am euh, jéggi na dayo mais tey dañ ci dugal lu si bokkul ah xam nga tey kii génneeloo nit ki sarax nga naan ko indil ma juróom-ñaari keesu nen mais mais mais juróom-ñaari keesu neen kooku dafa bëgg a defar omelette rek. Mhm, mhm. dégg nga mais lu ci bëri nit ñi dañ dul xelaat. Mhm. wala yow yooyu gis loo ko. waaw euh, xam nga nit ñi moom li ñuy wax foo dem fekk ñu jub fekk ñu jubati mm. léeg-léeg tam jubadi googu day dem ba nit ki la ko war a jariñ sax dootu ko jariñ mm-hmm. xam nga lu tax mm-hmm. bu ñëwee fekk fa njariñ ne sax mm-hmm. xelam yépp mi ngi ci jubadi gi laxasu ci loolu te sarax sëriñ bi dafa nekk lu ama ama am doole ci nit parce que li ciy rot ci xadis kenn mënu la ko wax li ci rot ci ay tex yoo xam ni dafa wér kenn mënu la ko wax mais dem na ba léegi pour nit gëma ci sarax sax dafa jafe waaw te gis nga sarax waxuma sax man kii ñëw di ñaanul mais kii ñaan rek lim ci war a def bu ko dee def rek lu ne mën ku mu digaaleel yàlla mën na ci def tawféex dëgg la waaw te sarax li ci yéeme mooy yonent bi sallallahu wax na ci texte yu baree baree bare baree hmm. bare xam nga bu demee ba naan kii saraxe hmm. bu saraxee ah, ba noppi yàlla danaan malaaka bi hmm. malaaka bi day naan yàlla yàlla na nga delloo kii li mu saraxe woon c'est-à-dire kii saraxe un million waaw buy génnee malaakaa ngi ci wetam waaw ko yàlla lu mu joxe waaw nan ko jox lu ko ëpp waaw allahuma aati munfiqan xalafan xalafan wa aati mumsikan talafan waaw saxiix kon kon nga xam ni loolu xadis la bu wér saxiix léegi nag te wa ba pare wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlif saxiix mais ba tey wa maa tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim te lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mimmaa tuhibbuun donc kon loolu dafay wane ni ñaareel ba mooy damay wax ni xoolal tam mu dem ba wax ni sarax day faj feebar dëgg la nit dina feebar mhm. ñu génneloo ko sarax ñaan ci yàlla feebar boobu wér yonent bi wax xadis bu wér daawu mardaakum bi sadaqa saxiix seetal loolu waa léegi loolu suñ demee ba bëgg ko intoxiqué hmm. ba mu war a yàqu tam hmm. ñu dina jaadu ñu wax yi ci wér hmm. parce que tam ki lay laaj saraxit moom man damay wax ni gis nga ki la ni ñëwal saraxeel fii benn saako ceeb dama koy jël nangam yow soo jëlee njëkk la jox ko gis nga bu ko lekkee yow saraxe nga lépp luy ayib ca sarax ba ci moom lay dal ak njabootam kon xam nga koo xam loolu du ko def. même bu la naxee moom. même bu la naxee moom yow sa sa sa yéene yegg na waaw. xam nga indi yow tey jii indi ñu jënd xar rayal la nangam naan nga ni waaw dindi sa xaalis joxe. innama al amalu bi niyaat wa innama li kulli imri'in ma nawa yow boo demee ñibbi tëddal yow génne nga xar sara donte ni moom jël na xar wa féetewoo lu ci ayib moom lay ayib ak jabootam moo tax ñi xam sarax pire xalaatu nu koy lekkantu. parce que ku gis muy lekk façon yooyu du dem kanam. dafay dellu ginnaaw rek. parce que musiba bu aju woon ci yow la ngay dàq ci moom lay dem bu dee feebar booy dàq ci moom lay dem bu dee ñàkk ci moom lay ñëw bu dee xat-xat ci moom lay ñëw kon loolu dafa war a wér. ba pare dama ciy wax benn rek euh, xissa muy euh, diggante Haabil ak Qaabil mm-hmm. bi nu waree weccante seeni seer ba problème juddu. Mm-hmm. ba am ca lu ca xew. bañ leen di àtte dañ ni kenn ku nekk na indi ci li muy liggéey comme kii sàmm la mu indi xar kii baykat la mu indi sàq teg bi nu indee teg kenn ki ci am dëgg asamaan wàcc ba jël bosom wax nañ ni xar ma la jël yóbbu aljanna parce que xar amul foofa moom lan yar ba keroog bi ñu bëggee jot suñ maam Ismaayil ba mu bëggee jot Ismaayil bi ñu ko bëggee jot xar moom lañ indi jote ko ba kanam kon loolu dafay tegtale ni xar ren di toj jël yàpp yu ay jullit ñu lekk ko mën na dabu sax bakkan cest à xaru xar moo xaabil joxe woon waaw moom lañ yóbbu woon kaw asamaan waaw bi ñuy ren di Ibrahima euh, Ismaayla moom lañ leen moom lañ indiwaat ah loolu loolu loolu kii la maanaam luñ nettali la wala dafa am dalil loolu mais loolu dafa am dalil ci alquran boo demee ci watlu alayhim naba abnaya adam bil haqq hmm. ah is qarraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima walam yutaqabal min al axar non aay bi xam naa koy qaala la aqtulannak qaala innama yataqabalu llah min almuttaqin non loolu saxi ci anam non c'est-à-dire est ce que mën nañoo am dalil buy wane ne xar moo moo mi ñu doon rendil Ismaïla pour jotee ko ko mooy xar mañ yégaloon kaw asamaan loolu waaw parce que lii mooy dalil bi d' accord ñu kon waa léegi euh, maam as xam naa ne fi ñu toll nii. Mhm. Euh, malheureusement waxtu wi jeex na. Euh, daal li nga waroon wax ci sarax bari na. Mhm. mais nga tënk ko. waaw ñu tàggoo. waaw léegi li may wax rek mooy. Mhm. wax nañ ni ba tey tam sarax dina dindi meru yàlla. dëgg la subhaanahu wa taala. ci nit ñi ak ci askan. gis nga réew sax bu ñu demee ba jaaxle. kilifa yi fa ëpp doole. war nañ génne sarxe war a defa gis nga sarax. Euh, mook azaka ñoo yem hmm. suñu ko fowee rek àddina tukki dëgg la dégg hmm. moo tax yonent bi wax ci xadis yu bari hmm. ah euh, wax nañ nitam dina rafetal dund nit dégg maanaam sarax dina dem a dem a dem ba nga xam ni nit ki ci boppam mhm. euh, bu baree lu muy sànqe mhm. yàlla dina ko defal jàmm mhm. dina ko defal njabootam dina ko defal askanam dina ko may mujj gu rafet dina ko may mujj gu rafet tam dégg kon loolu kenn waru ko fowee te bakkaar yi nga def aussi sarax da koy effacé da koy effacé jërëjëf loolu xadis yu bari ñoo ci wax dëgg la dégg boo defee yu bari am na ci façon bakkaar yoo xam ni nga sarax nit mu lekk ba suur ñaanal la yàlla moo ko mën a dëgg wax nañ ni sa mag ñi wax nañ ni même jox benn nit mu lekk ba suuf moo gën tabax téeméeri dëgg la dëgg la maam parce que ci yont yàlla Ibrahim waaw dañ na bi mu tabaxee kaaba gi dafa julli ci koñ bu nekk mm-hmm. junni rakka mm-hmm. boo ko boolee muy 4000 raka waaw yàlla defal ko benn waxyu mm-hmm. ne ko yaa ibrahim mm-hmm. maa faaltahu xayr mm-hmm. lakin luqmatun fi batni jaain ahabu indi min hada kullihi ñeent ñeenti junniy rakk nga def ko naafila baax na mais nga jël benn tib tibu ñam jox ko ku xiif moo ma gënal ñeenti junniy rakka kon saraxe ñam kenn xamul nu mu toll dafa baax ma malheureusement waxtu yi moo jeex euh, lan ngay tàggoo waa alhamdulilahi rabbil alamin bu baax ñaan yàlla subhaanahu wa taala émission bi mm-hmm. yàlla nekk ci émission bi gën màgg ci émission yi télé yi ndax lii du lu ndaw mm-hmm. gis benn mbir boo xam ni mm-hmm. doy na waar te li muy yàq mi ngi yàq te fekk am na poj yi ko téye poj yu leer yu baax la nga ñëw leeralaat ko ñu tegaat ko ci kii yàlla nañu yàlla dafa jaalana allahu min alladina yastamiuna al qawla fa yatabiuna al ahsan maa ngi nuyu bu baax nag sama wayjur bu góor alxaaj Babacar ci Tiwaawan maa ngi ziar bu baax tam nuyu sama sëriñ sëriñ kër Si Abdoul Aziz di jaal sam sama yaayi bopp soxna Lalla Ñang di nuyu Ndey Mariam Si ak waa daara ji ak waa kër gi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf maam kontaan nañu trop parce que li nga fi wax tamit euh, maa ngi lay sant parce que ñu bari si tey ñiy yëngu ci mel ni yow boo leen wooyee ci lu mel ni dañuy daw Euh, bon léegi nag ñun tamit lii rek la ñu bëgg parce que débat moom bu amee rek xam-xam génn euh, dañu bëgg rek nit ñi li ñuy wax ñu am fu ñu ko teg mm-hmm. Sénégalais yi nanu ñemee di def débat parce que mm-hmm. muy génnee xam-xam mm-hmm. ku nekk li nga yor nga indi ko dañu gëstu xam-xam rek pour bëgg nit ñi leer fii ñëwal ci émission diine jarul ragal dégg nga en général boo leen waxee ci émission yi dañuy daw dañu ragal ragal xawma tëb mais boo yoree bagage jarul ngay ragal dégg nga te ñun vraiment réew mi rek la ñuy liggéeyal ak diine ji li ñu fi wax nag ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci lu jaarul yoon dellusiwaat gannaaw tuub mhm. jéem a tënku mhm. comme li maam as wax mhm. lépp looy def nga def ko ci alquran ak sunna respecté charte yi ñaan sarax la ca nekk ci ngëneel yépp ku koy def nga teg ko ci yoon jaarale ko ci yoon di nga am ngërmandeel yàlla am ngërmandeel yonent bi tey lii moo nekkoon seen émission al amin ngeen àndoon seeg gan gu tedd gi euh, sëriñ maam as xam-xamam màcc si ñaan ñu ñaan yàlla subhanahu wa jaam yi nga xam ne ñu ngi ñëw foofu ci yow mhm. li ñu am ci yow yaakaar yàlla bu ko yàlla tas toujours nañuy gis ci yow aajo ju faju mhm. te nag ngeen def ko ci alquran ak sunna dégg nga te te yenn baatin yu xaw a kii yooyu noonu <laughs> eh, ngeen kii ko daal ah mu nekkoon seen émission al amin mhm. lakum minni alxub wa duaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu